ah am na ku wotal bi cinq mille fii Alimana ah? après mu d'accord Alimana ok euh, merci monsieur le président euh, monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de, de des affaires étrangères maa ngi lay nuyu donc di nuyu sa collègue chargé des relations avec les institutions di nuyu aussi sa délégation bi mes collègues honorables députés maa ngi leen di nuyu mes remerciements vont également à l'endroit de la diaspora sénégalaise particulièrement ceux de l'Europe du Nord de l'Ouest et du Centre euh, monsieur le ministre je voudrais avant d'entrer dans le vif du sujet vous adresser toutes mes félicitations parce que ñun waa diaspora bi am nañ ci yow yaakaar parce que yàgg nañ la suivre xam nañ sa taxawaay effectivement bi nga amoon au niveau international donc bu le monsieur le président de la république et son premier ministre proposé ce poste-là dañ ciy am yaakaar yaakaar bi nag du lenn lu dul ñu dañu nekk des représentant de la diaspora ça fait des années que ñu taxaw fii di di di di wax les préoccupations de la diaspora mais comme bu ñu ma daan masa wax nag dañu daan xoolee opposants yu taxaw bu ñu waxee duñ déglu bu ñu bëggee am interlocuteur au niveau des ministères ñu tëjal ñu ay bunt kon bu ñu yàlla defee nag léegi ñun waa PDS ñu xeex ba ba ba alternance am ñu fal la basi Bassirou Diomaye Faye mu indil ñu un ministre bu bees am nañ yaakaar ni incha allah vous allez produire des résultats probants leneen li ci des mooy la sécurité la sécurité transfrontalière lu am solo la mais ñun nag je pense que ñun waa diaspora bi suñuy préoccupation aussi lu am solo la préoccupation yi li ci njëkk mooy les papiers administratifs notamment le passeport je pense que mon collègue Samba l'a évoqué madame le ministre euh, problème bu ñu am mooy problème mu passeport j'ai toujours dit que il faut que les autorités sachent que le passeport c'est la pièce maîtresse d'un dossier pour avoir un titre de séjour man jot naa ay ay ay ay ay ay ay interpellation démb ay sénégalais yoo xam ni dañu dem euh, comment dirais-je euh, euh, consulat pour avoir un rendez-vous juin 2025 lañ leen jox un rendez-vous or ñoom seen seen rendez-vous préfecture c'est pratiquement dans deux ou trois mois c'est-à-dire que si l'État ne fait rien ces sénégalais-là vont se retrouver dans une situation irrégulière ils vont perdre leur travail te nee naa aussi la diaspora non seulement nous sommes des vecteurs en tout cas nous sommes les les les les les les défenseurs de notre démocratie parce que xeex bi ñu xeex ñu ñëpp gis nañ ko mais nous sommes l'épine dorsale de la stabilité sociale et économique du Sénégal c'est-à-dire que jaspora bi bu doxul Sénégal day tàkk parce que ñun ñoo yor famille yi jaspora sénégalais boo xam ne liggéey na li muy njëkk xalaat mooy la famille au Sénégal bala moo xalaat boppam. kon ñooñu je pense que war nañoo taxaw ci seen i bëgg-bëgg ak seen i soxla parce que ñun suñu soxla bariwul bu ñu joxee ay passeport rek bàyyi ñu ñun dinañ liggéey incha allah pour le Sénégal l'autre fait ce sont les travailleurs yi nga xam dañoo nekk en France nekk en Angleterre nekk en Belgique nekk partout en Europe du nord de l'ouest et du centre j'ai évoqué la portabilité des, des, des droits sociaux c'est-à-dire que un Français bu nekk fii ci Sénégal bu liggéeyee ba am fi quatre ans cinq ans six ans ça aussi j'interpelle monsieur le ministre bu démissionné wala mu quitté euh, comment Sénégal dem France il garde ses droits sociaux mais le contraire n'est pas possible c'est-à-dire que un Sénégalais bu liggéey France bu fa démissionné parce que aussi nous sommes dans un monde mouvant mën naa gis liggéey France liggéey fa quatre ans cinq ans liggéey boobu neexatuma wala ma bëgg a changer ma ñëw Sénégal mais bu ma ñëwee mënuma indi samay droits sociaux je pense aussi que loolu monsieur madame le ministre war nga ñu ci euh, indil ay ay ay ay ay parce que sénégalais sonn nañu ci loolu leneen li mooy les retraités j'espère que euh, xam nga loolu yëngeen loolu un retraité sénégalais bu liggéeyee ba retraité bu mbëggee ñëw Sénégal toog fi mënu fi toog plus de six mois c'est-à-dire que il est obligé de retourner balaa six mois yi euh, jeex sinon bu ko deful il va faire l'objet d'une rétention man interpe dem naa pass euh, comme aéroport ba ba tàyyi ci ay sénégalais yoo xam ne dañoo ñëwoon rek ñu dugal en rétention parce que dañoo def plus de six mois alors qu'ils ont fait vie en France loolu je pense que humainement état bi war na ci jóg leneen la ci des foofu laay foofu laay terminer madame la ministre sunu consulat yi li ma lay demander di la ko ñaan mooy avant ngay def lenn ngeen def un audit du personnel il faut une désapérisation de nos consulats une désapérisation de nos consulats consulat boo fi dem ñu ngi ko duy ay militants wu APR yoo xam ne amuñu benn njariñ je sais ce que je dis je parle en connaissance de cause da ñëw taxaw ci consulat bi ñu xam ni yow àndoog ñoom ñu lay saaga di la toroxal man mi di wax ak yow j'ai fait l'objet d'une interdiction d'accès au consulat de Paris alors que j'étais loolu madame le ministre bëgg naa nga taxaw ci léegi li ci des mooy Ibrahima comme ni ma ko waxee ñu ngi lay ñaanal incha allah je sais que dina am ay résultats et la diaspora vous attend sur ça merci beaucoup merci chers collègues la parole est à notre collègue Madi Damfakha suivi de Cheikh Aliou beaucoup, Président. Madame le ministre, le ministre, les collaborateurs donc des ministres, je vous salue. Chers collègues, je pense que ce projet de loi est venu donc à son heure parce que la coopération transfrontalière est d'une capitale extraordinaire. Euh, je pense que nous, nous avons déjà pris le, le devant en ce qui concerne le Sénégal, le Mali, la Guinée et aussi donc le Burkina Faso. Sur le plan local, en 2014 déjà, avec GIZ, nous avons fait donc des rencontres a kay à Saraya à Kédougou à Tambacounda pour parler donc de de la coopération transfrontalière entre euh, Tambacounda et Kaay entre Bakel Dimois donc et Kaay et Saraya avec le cercle donc de Kéniéba parce que nous avons déjà euh, réfléchi que ça peut régler donc pas mal de problèmes entre les pays. Euh, cette coopération visait quoi? C'était tout simplement donc la protection des aires. Avoir donc des aires protégées et protéger donc en même temps donc le fleuve Falémé qui se trouve donc entre le Sénégal donc et le Mali et aussi donc le Bafi vers la Guinée. Je pensais que si on avait donc continué donc depuis 2014, ce fleuve Falémé ne euh, pouvait donc ne pas être donc dans cet état aujourd'hui. Mais malheureusement, nous avons commencé et ça n'a pas été donc, n'avait pas donc abouti. Mais je pense que dorénavant, nous pouvons comment, euh, réfléchir encore comment vraiment réactiver la coopération donc entre ces pays. Je me rappelle également qu'avec euh, le ministre actuel de l'Environnement, M. Daouda Ngom, nous avons eu donc une mission conjointe. C'est lui qui avait donc dirigé la partie sénégalaise. Il y avait le capitaine Dour et moi. On était trois donc du côté du Sénégal. Nous sommes donc retrouvés à Bamako avec d'autres pays, donc la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina et le Mali. Et nous avons aussi donc travaillé pendant quelques jours sur donc comment vraiment faire pour protéger l'environnement, n'est-ce pas, de ces pays ensemble. Je pense que en ce moment, donc, lui, il travaille donc déjà donc, à l'UNESCO. La rencontre a été donc facilitée, sinon organisée par l'UNESCO. Madame le ministre, euh, nous avons donc des documents qui existent déjà à l'ARD de Kédougou. Si vous avez peut donc interrogé donc, le directeur Khalidou Sissoro, il pourra donc mettre à votre disposition donc, des documents concernant donc, ces coopérations transfrontalières. Monsieur donc Ibrahima, déjà Diop l'a dit, c'est lui qui est donc vraiment bien placé pour parler aussi donc des souffrances des Sénégalais donc de l'extérieur plus particulièrement donc en Europe. J'ai été plusieurs fois en Europe. Je lui ai donc rencontré donc en Europe. Madame le ministre, nos parents qui se trouvent donc en Europe souffrent énormément. Nous avons donc des parents qui sont là-bas et qui ont laissé donc des fils au Sénégal. Mais le regroupement donc est quasiment donc impossible. à chaque fois aussi, donc, en ce qui concerne donc, les passeports, s'il faut donc déposer donc, à partir donc, de l'Europe, vraiment, c'est vraiment donc, des, euh, un grand problème pour avoir d'abord donc, le rendez Et même si on a donc, donc, le rendez-vous également, ça va être donc très, très long. Ça sera donc une très longue date par rapport à ça. Ibrahim Diop, je peux vraiment donc vous témoigner par rapport donc à la difficulté que rencontrent nos parents de la diaspora. Je ne vais pas entrer donc dans le but donc, du, sujet par rapport donc, au consulat, mais on sait déjà donc, ce qui se passe donc, dans le consulat. Je vous remercie. Je vous remercie. Euh, suivi de Baran Fofana.